tey nag dañuy ñëw ci cas Idrissa Gana Gueye bi nga xamante ni mën naa ni jamono ji mooy def ba ci àdduna bi yëpp euh, ci diggante match Paris Saint-Germain bu mujj bi ak euh, Montpellier euh, waa Paris Saint-Germain nag dañu dañu doon seen moyens yi dañu doon promouvoir couleur LGBT bi léegi moom Gana Gueye nag comme que religion may ko muy may doole loolu ñoo ñuy woowee ay mbiru borom ñaari tur dina may ko ay aussi fii bari na fi ñoo xamante ne ñu ngi koy xeex moom tamit euh, jàppale na leen si xeex bi foofu daal di wane ne que Sénégal ñoom bëgguñu góor jigéen bëgguñu kuy may doole góor jigéen voilà ñu gis si nag si yenn suñu joueurs yi nga xamante ni ma gis nañu sol mooy boobu noonu mu doon loo xamante ni ñi euh, ñi ngi ñu ngi wax si si si si affaire u bi mais pour man loolu mu ëppoon important ñu dem ñu tourné wax si su suñu joueurs yi nga xam te ne gis nañu sol mooy même bu dee dañ leen ko force war nañ am seen dignité boobu boobu waruñ ko sol gis nañ si ku mel ni Alfaro Gomis ak euh, Pape Matar même Bamba Dieng gis nañ ko mu ngi sol mooy boobu noonu mu doon loo xamante ni vraiment man daal xaw ma lan moo waral loolu mais ñaaw na trop trop trop si si euh, en tant que jullit quoi ngay ngay may doole loo xamante ne sa diine bëgg ko loolu dara jaru ko si àdduna même bu ñu doon fay xaalis bu dul jeex sax jaru ko quoi. Euh, di wax nag Sénégalais yëpp nañ maa ngi koo dem jàppale Idrissa Gana Gueye may ko doole